bis bii nekk bis bu kenn dootul fàttee ci atum 2020 fukki fan ak juróom-benn jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ci atum 2020 bile bis nekkoon bis bu tiis lool fii ci diwaan bu Touba marché bi di marché Ocass tàkk jërët ci guddi fukk ak juróom-benn jàpp fukk ak juróom-ñaar lool yi nekkoon aw naqar lool ci ñi nga xam ne ñoo fi doon liggéey koppar yu bëri ndax saa yoon fii ñi nga xam ne day ñoo fi daan liggéey bis bi ñu koy fàttaliku. mu nekkoon lu tiis lool. waaw le 16 17 novembre 2020 euh, ci la incendie bi nga xam ne moo fi amoon fii ci marché Ocass yóbbu woon fi alal ju bëree bëri euh, yàlla def na tamit ñi ngi sant yàlla bi ñu ko fekkee waate euh, di ci fàttaliku tamit li nga xam ne moo fi jaaroon. waaw yëgoon lu metti nag ak lu tiis ndax ndaw luy daan dooleem ba jot a dajale as capital suñ borom ñëw ak ndogalam. Ah, loolu tamit lu méttee métti la. métti woon na lool waaye mais sant yàlla rek ndax jàmm moom lu yàlla dogal si moom daa fekk moo nekk lu gën mooy lool mooy lool. waaw ah, même fekk sama kër deux heures de matin lan moo waaw wax ma ko ma ñëw waaye ah, fekk naa mu lakk ba jeex mooy lool. mu jot lakk bëri woon na bëri na lool sax waaw jamono boobu daanaka ñu ngi doon doog a jug mooy lool. waaw yàlla rek xam lu war a am moom day am <laughs> affaire moom sant yàlla rek. waaw métti woon na moom métti woon na trop mais nag saa yi moom yàlla def na jàmm. ab jullit moom lépp lu dal ci moom tam dem ba man koo nettali rek na ko sante suñu borom. waaw mi ngi ma fekk sama gàlle ay vers de deux heures du matin ci la ma gars yi contacté ne ma ñëwal marché bi day am incendie ci laa ñëw gis lépp nekk ay tàkk-tàkk. waaw waaw. ah tey tey de moom bu ñu ko fàttaliwoo boobu dañuy sant yàlla rek ndax boobu métti woon na lool te da bàyyi deux heures du matin ñëwoo la ndax sa bagage jeex na ah boobu de mooy damaa tëddoon di nelaw si lañ ma woo sama téléphone dama marché ngi lakk si laa daw daw yu métti ñëw bi ma ñëwee xool gis sama place gisatuma lu du ay wiñ kese laa fekk. ñu ngi koy ko mais ñu ngi sant yàlla bu baax aussi yàlla. xëy na métti na mais tey xëy na fàtte nañ ko ndax santaan nañ yaa defaraat nañ suñuy place ba ñuy dooral waaye. waaw waaw parce que euh, daaw si fi rek man ma doon na 4 millions moom. ñoom ñi la dee ginnaaw liggéeyu kilifa yi defoon nañ ko ngir yaatalaan marché bii jàppandal dem beeg dikk gi booba léegi day njawdi desewu xambin ci marché bii. déedéet ndax bañ lakkalee ñëpp ñëw nañ fi di ñu sees waaye ba léegi gis nga marché bi nii ni meloon na meloon nu ko raw la melaat nii dara dara dara yokk fi dara wàññeeku fi mbedd yi daa gën a xataab sax ñu dimbali ñu ngir yàlla ñëw defaral ñu suñu marché bi ndax Touba amul usine amul géej ñu suñ marché bi rek lañ am ñu bëgg na ku ñu dimbali rek ngir yàlla nga defaral ñu. defoon nañ ci ay waxtaan yu bëree bari mais ba léegi dara yembagu ci mais teewul tamit ba tey ñun fi ñu nekkoon rek ñu ngi fa di déglu kilifa yi rek comme que ñoom ñoo yor dogal yi ñu ngi leen di déglu daal lépp loo xam ne indi nañ ko ci te ñu war koo waxtaanee te dogal war cee jib daal ñu ànd ceeg ñoom rek. booba léegi ñu ngi koy xaar nag ba léegi may wax yow ngi koy xaar waaye nag gisaguñ ci dara nag moom defaraat geeg yeesalaat geeg booba léegi ñu ngi xaar waaye gisaguñ ci dara nag wax dëgg yàlla moom. loo xam ne ko jàppale ci bi pour ñu soqali ko daal ba mu gën a jëm kanam moom ñoo ngi leen ñaan njekk ak teraanga bu ñu si mënee dimbale ñu defal ñu si loolu. nañu dimbale te xam ne ay ndaw lañ dañuy liggéey ñun amul lu mën a ma wagaas daa fay ni daan suñu doole ay ndaw yu bëgg liggéeykat ñoo fi ne di téye seen waajur ju di si doxi addiya kon donc ni nu mënee dimbalee moo nu dimbalee et puis ñu suñu mënee am centre yoo xam ne place yi mën na yomb nu wàññi que nit ñi ñi nga xam ne dañoo nekkoon si mbedd bi da bëgg place bi su demee mën am place biir ñi nga xam ne itam dañoo nekk si kaw tali bi mën am place territoire comme nii su ko defee affaire yi dina mën a yomb ak ñun quoi. bis bi la day fukki fan ak juróom-benn. jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2020 ci fii ci diwaan bu Touba day guddi gi guddi gi metti woon loolu la ci ñii di ambulant yi ak commerçant yi fii ci diwaan bu Touba ñuy ñaan wila ay yam fi ba faw